Digo te nga ñëw fi ñu sargal la prix boo xam ne ñëpp la ko yéene jigéen ñëpp la ko yéene. dëgg la waaw waaw waaw tey damaa ñëwoon fii euh, Raffine Night ñoo loon euh, def fi benn euh, dîner de gala boo xam ne ñuy sargal jigéen ñi aussi di saytuwaale ñi nga xam ne ñoo am concert. donc ma bokk ci ñi nga xam jigéen yi nga xam ne dañ leen sargal ma leen ci remercier bu baax am ci mbégte ak contentement. cause bi ngay xeex jigéen ñi chaque jour yaa ngi réussir jigéen valeur am loolu lan moo la ci lan moo la ci. yàlla. Tu vois, on choisit pas sa vie hein on choisit pas ses combats on choisit pas son destin yàlla mooy def bu problème amee lu laaj jigéen sa xol mooy jug te booy jug doo ko tey c'est-à-dire des fois sax nit yi la naan balaa ngaa dugg ci dara réfléchir xalaatal mais sa buy jug booy jug di dugg ci combat bi doo ko tey tu ne calcules pas donc euh, vraiment euh, dimbali jigéen moom duma ci am benn regret lu mu metti metti ak lu mu neex neex neex je continuerai sur ma voie. des fois doo ci am lu lay metti wala ay déception yoo xam da nga koy dund mais nga mu ñaan. àdduna lépp metti àdduna lépp metti àdduna nelaw metti na yeewo metti na liggéey metti na toogaay metti na naan metti na lépp metti man parce que booy jàppale xaaroo ci merci te booy jàppale da ngay def te yàlla tax ndax jigéenu Sénégal dañ leen di néewal doole on les défend pas assez. elles n'ont pas le droit à la parole du nu wax te ku wax tamit ñu joxoñ la baaraam tuuma donc j'ai aucun regret te nag euh, comme lu may wax àdduna lépp a métti te man plus muy métti sax plus may gën a engagé. vidéo bi ñu gis temps yi jigéen ñu koy méttital jànk ñu toog dóor ko màtt ko torturer ko ci biir kër loolu ba nga ko gisee nag. lu ma métti la parce que jigéen Sénégal wax nañ toll foo xam ni dañoo war a jàppalante dañoo war a bëggante te yërmande dafa war a am ci diggante. ñaatike ak euh, ak euh, moromam donc euh, nit buy liggéey yow boo ko mënal muñal bàyyi ko mu dem waaye bàyyi ko sa bii ko di ko maltraité dafa metti te bu ñu fàtte ne ñëppay am doom te ñëppay njaboot te jigéen nag fu ne lay dem ci àdduna tey jii boo amee doom dina jàngi bitim réew wala dina dem sëyi bitim réew wala dina dem nekk bitim réew nañ ci bàyyi xel te liñ lépp loo xam ñu ngi koy def ci doomu jàmbur rek mën na këpp waat suñu njaboot. duñ la la tee mais Miss Sénégal bi nga soulever ko affaire bi dem ba affaire bi dem ba si justice est-ce que amoo si regret. aw ma ci benn regret oh non jamais. aw Miss bi doon def lu dëgg ay rumeur ñëwaat. non loolu yëpp ay wax la elle a été sincère dans ses dires te ñun gëm nañ ko. bu baax a baax tey lañ ko gën a gëm tey lañ ko gën a gëm. donc euh, vraiment euh, li ñuy wax naan Sénégal ñëpp am kilifa te moom dafa am kilifa bës bu ko kilifa bàyyee rek incha allah li ki des dina ko mëne a bien. waaw nañ Femme Chic la kontaan waaw waaw Femme Chic maa leen di sargal di leen nuyu bu baax a baax ñu ma jàppale ñu ngi noonu ñooñu nekk ma ci ay jafe-jafe rek ñu seetaan ma dañ maa soutenir jusqu'au bout maa ngi leen di remercier di leen sant bu baax di leen gërëm. merci à vous